واو واو واو خادم خادم الجوهرة نونو فودا دغرا سكر mais jaaña ngi noonu waaw jox na jox na xaadim ah seeni rakk lañ Gracias.

Caldo, drop. cài cài cài cài cài cài cài cài cài ai Thank you.

Bak. Bak. Bak.

one. Thank you. info. Por aí, olha para info. by Omar Nyas. vamos Marinhense. Oscar. nee na micro bi ñu wax day di waaw Amen. 빠만 빠만 Shoot!

Come here.